tey jii nag ñoo ngi waxtaanee ci feebaru hémorroïde ak ci feebaru colopathie fonctionnelle euh, ñaari feebar yooyu nag ay feebar yu niroo la waaye bokkut waaye amaana niroo nañu lu ñu leen di faje hémorroïde nag nekk na lu sonal askan bi bari na ñu ma koy laaj ak bari na ñu ma ci posé ay questions yu bari wante incha allahu rabbi dinañ ci joxe ay leeral luñ ci mën incha allahu rabbi ba yàlla def ci tawféex ñu ci yàlla booleel ci kàttanu suñu borom it ñu fajal leen ko ba mu dañ. hémorroïde nag moom dafa am ñaari façon dafa am hémorroïde interne am itim hémorroïde externe hémorroïde interne ak hémorroïde externe nag ñoom ñaar ñëpp ay hémorroïde lañ ndax hémorroïde nag boo leen ko déggee li tubaab di wax euh, c'est la dilatation des veines autour du rectum bu dee ci jigéen ñi itim rectum bi dafa xaw jege ak utérus bi bëri na ci jigéen ñi xamante ni moom am nañu hémorroïde lan moo nañ ko gën a mën a may ci accouchement lañ koy jëlee wala pendant la grossesse maanaam dañu nekk ay jigéen wérul te bu ñu nekkee aji jigéen wérul boobu surtout bu ñu dem accouchement ñu leen di wax poussé poussé boobu ñu leen di force loolu onk boobu ñuy def poussé boobu day dem ba euh, hémorroïde bi ci jamono jooju lay commencé génn ndax nee naa leen euh, ay dilatation la autour du rectum maanaam euh, veines yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ñoo nekk ci ginnaawam

ndax day dem bay indi ay brûlure ku jigéen ki day sentir ci ginnaawam day metti muy saf te du mën a toog bu baax ñoo ñu itam nekk na li xam te ne jigéen ñu bëri loolu daf leen sonal trop mais li ñu constaté mooy ci surtout hémorroïde externe boobu may wax léegi am na ñi xamante ni daf leen sonal muy tumee naka tailleur yi tailleur yi moom hémorroïde interne daf leen sonal trop trop trop trop trop trop bari na ay xeetu tailleur yi ay xeetu nit ñi xamante ne ay tailleur lañu mais hémorroïde dañ fii très souvent dañ ko fiy jàmbat waaye sunu borom danañu ci dimbale ba bu ñu fi jaaree def benn traitement du gudd sax daanaka mën nañu wax ci benn un mois ñu faj leen hémorroïde boobu ba mu dañ maanaam ci benn rendez-vous wala ñaar gën ji gën a bari ci kàttanu sunu borom ñu dindi hémorroïde bi mais hémorroïde externe lay doon mooy bi ci biti ñooñu tailleur yi ak chauffeur yi nga xam ne dañu dëju dëju bu yàgg mën nañu wax à la longueur du journée euh, dañuy nekk ci seen ay oto di dawal def ay long voyage ñooñu très souvent loolu daf di faral di dal da fay dem ba léegi itim comme ni mako ko ci sen ginnaw ci anus bi dafa am luy jóge ci biir bi di wacc da fay ne genre butit wala muy mel genre sidit wala muy mel ne genre picc dafa bari ay xeetu façon hémorroïde li xam te ne dafa am mais ak bu mu ci muti don rek ñun bu ñu defee consultation bi wala bu féké nit ki woote na ak ñun ba waxtaan ak ñun ci kàttanu suñu borom bu ñu déggante ak mom dinañ xam ban garab lañ ko koy mëna jox jappalé ko ci ba dañ mais ni ñu mën xamé xamee hémorroïde la plupart moy biir bi day ballonné

ballonnement de ventre bi te hémorroïde dafa nekk feebar bu baadoo la fàddal bu feebar bu doy waar surtout nag bu nekkee ci góor mën na dem ba di ko téye ci doole ci ngóora ak ci kattan ak ci wàllu sëy bari na ay góor yi nga xamante ni itam dañu am façon jafe-jafe yooyu mais ci kattanu sunu borom ak bu mu ci mënti doon muy hémorroïde interne bi ak hémorroïde externe danañ ko faj mais nee naa leen nag feebar bi xam te ne dafa niroo colopathie fonctionnelle ndax pro colopathie fonctionnelle ñooñu très souvent bu ko gisee problème digestif la ñuy am digestif bi problème dañu am problème digestif manam dañu am problème digestion euh, comme ni ma ko légui duñu supporter tamaté duñu supporter mafé duñu supporter gerte duñu supporter plat yu bëri ci ay lekk duñ ko mëna a lekk yenn même yenn togg yu bëri itim duñ ko mëna a lekk même yenn lekk ci walu fast food duñ ko mëna a lekk ñooñu itam dañu am problème colopathie mais liñ ci gëna gis euh, bokk na feebar yi xam te ne yu yàpp jigéen ñi la colopathie fonctionnelle amna itim ay xalé yu góor yi xam te ne itam daf leen di faral di dal mais lu mu ci mënti doon dal incha allahu rabbi képp ku feebar yooyu daal ci kàttanu yàlla muy hémorroïde interne ak hémorroïde externe ak ki xam te ne dafa am colopathie fonctionnelle yàlla am na lu ñu ci may ba noonu ma posé problème bi wax ni am na causes yi nga xamante ni ñoo ko waral wax ni conséquence yi nga xamante ni moom lay jur ba dem ba jàpp nit ki ci wàllu euh, ci wàllu tële ci wàllu impuissance sexuelle ba dootul mën dara wàññi dooleem wàññi nguuram wàññi envie ak appétit ci kàttanu sunu borom mën nañ la si jàppale ba loolu ci kàttanu yàlla mu daal di dañ ak ñi xam te dañu am colopathie fonctionnelle sunu so mbokk soxna yi jigéen ñi sunu moment yi très souvent loolu itam daf leen di dal lu bare bare mais ci kàttanu sunu borom am nañ ci yaakaar boo leen wootee ci numéro yi ñëw affiché ci ecran bi incha allahu rabbi di ngeen jokkoo sunu waa entreprise bi waa cabinet bi am nañu oto bi nga xam te day def livraison à domicile boo leen wootee danañ leen yónnee garab yi lu ko faj ci biir ak lu ko faj ci biti même hémorroïde bi am nañ ci ay pommades yi xam te ni da koy diw pour hémorroïde externe bi yooyu ñëpp dañ leen ci may garab incha allahu rabbi livrer leen garab yi à domicile foo leen mën a nekk ci àddina particulièrement ñi nekk Dakar nekk seen bureau te am hémorroïde toogaay bi yàgg te mënuñoo ñëw ci kàttanu yàlla daañu leen livrer garab yi fu ñu ko mën a bëggee te jarul ñuy ñëw fii di rang wala ñuy déplacé wu nañu woote rek daañu leen livrer garab yi incha allahu rabbi